donc maîtriser nañ circuit commercialisation bi nan lay tëddee ak boucherie bi nan lay war a def mu baax beneen bi man maa ngi liggéeyee abattoir bu Tëngéej falaa defee sama enfance falaa duggee ci métier boucherie falaa jàngee fees falaa xamee luy abattoir abattoir nag ak fi ñuy jaay yàpp bokkul ñaari section la boucher ñaari façon la dafa am boucher acteur de l'abattage moom mooy xam li jëm ci abattoir am beneen boucher boo xamante ne dañ koy wax chevillard ak grossiste ak de détaillant mooy ñooñu dañuy jaay yàpp dañuy jënd seen nag fora yóbbu abattoir abattoir rayal leen ñu joxaat leen seen yàpp ñoom du ñu xam dara ci biir abattage bi du ñu xam du ñu nekk ak vétérinaire léegi nag ñi xam ne ay acteurs de l'abattage lañ ñoom ñoo xam lan mooy abattoir ak yan tex ñoo gérer abattoir région de Dakar ñaari abattoir fi am abattoir municipal bu Dakar ak abatoire municipal bu Rufisque seeraas bii ngay gis nii abattoir municipal bu dakaar la mairie ville bu dakaar moom moom abatoire bi waaw comme d'habitude euh, boucherie bi nag euh, ci la ñuy liggéey euh, bi nekkee xale ba léegi waaye nag gis nañ ne niñ ci woon ni ci état bi war a taxawee notamment le ministre de l'élevage taxawu ci noonu parce que boucher bi boucherie bi anarchie la te anarchie bu amee ci wàllu lekk yàpp mbaam sëf dina ci dugg yàpp medd dugg ci yeneen yàpp ñu xamul dugg ci ku ci bokk di ci liggéey koo xamante ne da nga dem ba la nga doon liggéey yàqu mën nga ci ñëw porox ndox lu liggéey maanaam liggéey bi dañ ko war a assainir moo tax ministre bu bees bi ñuy wax Daouda Dia depuis le 7 décembre lañ ko bind xamal ko lii nga xamante ne moo nekk ci biir boucherie bi ne ko nag du ñu bëgg ñu encadrer ak organiser les professionnels de ñun di yëngu dans le domaine de la boucherie depuis le 7 decembre ba léegi bu ñu ministre recevoir ro ñun boucher région de Dakar vraiment yaakaar naa ne waxuma lii du am de waaye bu baax du demee nii parce que boucherie amul kenn ku am droit di ko jaay wala nga koy liggéey te sa casier judiciaire vierge comprendre nga région bu nekk Sénégal dafa am nuñ ko doxalee région bu nekk dafa am abattoir am am boucherie gis nga yàpp bu ñu reyee Dakar amoo droit di ko jaay Thiès. moo tax loolu. loolu viande la parce que dafa dem ci administration gis nga abattoir bi ngay gis buy Seras moom gis nga mu ngi nekk département Pikine mairie Dakar moom ko mais chef service départemental élevage bu dakaar ak chef service départemental euh, élevage bu Pikine ñoom ñaar ñëpp kenn du nekk ci abattoir bi dafa am beneen service bu ñu wax service régional ñoom la ñu jël au niveau du ministère détaché leen indi leen ñu chargé wu inspection régionale bi. waa ci euh, jaay yàpp boobu nga wax yenn saa yi est-ce que du faral di am yàpp yoo xamante nii ñu ngi faral di dugg fii la ci Seras te ñu xam yàpp lan la parce que euh, gis naa la ci benn vidéo ngay wax ay waxu euh, yàpp mbaam xaw ma. walla walla li ma doon wax démb ci émission balance bi mbaam sëf yooyu Seras rey Sogas Sogas kenn du fa dugal yàpp Sogas abattoir la boo xamante ne moom mooy rey mala yi. transformer mala bi en viande pour euh, produit d'origine animale viande rouge moom maanaam industrie la quoi boo xamante ne jur gi bu ñëwee fa lañ koy éliminer traité ko ba mu nekk yàpp léegi moom Sogas euh, dafa am ay temps ñi ñëpp mën nañ ma témoigner ñu nekk benn période ñu indi ay camion mbaam sëf di ko fi rey ci biir Sogas di ko rey bëccëg di ko rey guddi ba pare affaire bi dafa xaw a mel dafa mystique parce que dañuy yeew ñun nii rek lañ doon xoolee bon affaire bi daal jaxasoo sama bopp. parce que tey ni ngeen génn lu dénoncé moo tax ngeen ne dañ fa mel ni dañ leen a yeew wala. ah mais bien sûr suñu liggéey dafa am ay aspect mystique muy abattoir bii di abattoir Tëngéej moo boo gisee bind naa sax procureur bu dakaar bind naa ko xamal ko ne ko abattoir yi dafa am benn réseau mafia satanique boo xam ne dafiy def pratique mystique satanique. bu dangereux pour population bi. d'accord balaa ngaa dem ci mystique bi yàpp mbaam boobu naka lañ ko doon def dañu ko doon jaay wala dañ naka lañ ko doon def. wala Sogas moom moo doon rey mbaam sëf yi tax mu ko doon rey nag xamuñu waaye ba mu koy rey di ko rey di ko rey yëf yi maa jékki saay déclenché coow li maa dem seen TV si ñoom Ahmed Aïdara tës leen waaw bi ma leen tësee nag yëf yi décanté wu yaa ngi dégg ñoom ci seen bopp. dañoo créer beneen affaire dañoo jël ñaari nit ay nit yóbbu leen fële ñu rey ay mbaam ñu oo média bi pour wane na ñaari mbaam yi la ñu rey mais ñoom seen junni junni mbaam ñoo ñu reyoon wane wuñ ko. d'accord junne junne mbaam yi xamu leen ba fan lañ ko utiliser. merci moom lañ leen di laaj yàpp bi moo tax OFNAC mu ngi nii parce que ñoom version yi li ñu wax ci rajo bi ak télé bi ministre bi li mu wax ak waa SOGAS li ñu wax bokkul. lan wax ministre ministre daf ne dañ koy jox ay rapport chaque jour mais rapport day gis ne. Euh, fas yi day bëri mbaam yi day bëri quoi mu ne moom mbaam yi gars yi ne ko communauté japonaise bi ñoo am benn fête mais waa Sogas ñoom dañ ne bi ñuy def seen point de presse dañ ne wax nañ ministre bi euh, état bi ni ñuy reyee mbaam saf bi bu yàggee sax mbaam saf dootul am ci àll bi donc Sogas a nga koy jiiñ ministère ministère a nga koy jiiñ Sogas boo déggee man la mystique la Sénégal yëpp seetaan nañ mais ba léegi kenn boppam leeru ci donc lii lan léegi nag ay toni toni mbaam sëf la yàbbi mais yàb bi ba léegi kenn xamul fa la jóge sogaas ne moom day jox yàb bi dañ koy yóbbu euh, parc Hann wala Bandia c'est faux amul droit boobu ñooñu ministère de l'environnement lañ bokk. d'accord kon yow ci sa xalaat bu gàtt da nga jàpp ne dañ jaay yàpp bi wala. voilà moo tax ma def plainte bi yóbbu ko of nag OFNAC nag ne woon na dina ma jox suite mais ba léegi suite amul donc mbaam sëf yi li ci nekk dafa garaaw. accusé réception wu nag mu ngi nii yaa ngi dégg Sogas ñu jógee jógeeti foofu pour te diir dafa habitué des faits secteur primaire vétérinaire déggoon nga bi ñuy grève le 27 le 28 le 29 septembre 2022 dañu dem grève abattoir bu tëngee ca reyul nag Sogas di rey comprendre nga rey na lu mu néew néew mille nag rey na lu mu néew néew cinq mille xar béy moo sababoon grève boobu ak lan moo tax ñi grève ñi bañ a grève waaw non vétérinaire yi dañu am droit grève mais texte yi li mu wax pour te dire Sogas xamuñu sax li li li texte yi wax maanaam risque la pour population bi nga jël ñu mel ni Sogas di leen jox abattoir comprendre nga parce que Sogas benn société biir privée la ay homme d'affaires lañ duñu ay feeskat duñu boucher ay politiciens lañ parce que PDG bi il est député à l'Assemblée nationale moom la ñuy wax Arouna Gallo Ba il est maire de Gamadji il est aussi haut conseil des collectivités territoriales ay affaires lañ jox abattoir bële bi nekk Tëngéej bon kii moo ko gagné euh, coalition gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany moo ko gagné foofu it ay toj tojang fa comprendre ga donc politiciens ñu téye boucherie bi moo tax mu bëgg euh, wasaare jàppale ñu pour askan bi xam ne carrément boucher yi téyewuñu boucherie bi comme ministre bu bees am na moom bind nañ ko audience audience bi biñ ko ko bindee c'est depuis le 7 décembre xaar 7 décembre audience bi yoroon naa ko fii suma ma juumulee audience bi def naa kay voilà depuis le 7 desembre ñu bind ministre de l'élevage ne ko monsieur le ministre ñu ne dañ buggoon nga jaa nga recevoir ñu audience ñu waxtaan ci wàllu organisation encadrement boucher yi pour ñu mën a liggéeyal askan bi